bismillahi irrahmani irrahim wasalaatu wasalaamu ala nabiyina muhammadin sala allahu alayhi wa sallam assalaamu aleykum wa rahmatullah nasalu allaha tabaraka wa taala alhidayata wa tawfiq mbokk yi ñu ngi sant borom bi subhaanahu wa taala di ko ñaan jub ak njéggal borom bi ñu baaxee dajale ñu ci béréb bi bokk ci béréb yi gën a tedd sabab ba mooy ñu diisoo li borom bi gàll ci suñu loos nu ñuy def ba mu yéwén ñu tànn ña ñu jàpp ñoo gën a dëgër pour man koo yéwénal mu ne ndaw yi ndaw shabab fi hifzi sunna wa xidmatil umma mu nekk unwaan bu yaatu lool bu ñu war a bàyyi xel xëj na dañuy junj taxawaay xam na luñ ci jublu ndaw ci wëttu sunna ak jëriñ xeet wi bu ñu nee ndaw lañ jublu mooy baada siba qabla al gannaaw ba muy rombee gone gu ràññeewu ba mu jëm ci màggi tële diggante boobu nga xam ne moo ëpp solo ci dundu doomu aadama bal lu dul moom ndaxte yu bari daje na ci moom kon ñooñu lañu bëgg a junj tuuti ci wax xam nañu ne ndaw bu farloo day doonu njëriñ waaye bu sàgganee day doonu jafe-jafe ndaxte soo seetloo nit ki fu mu amee kattan war fa jëriñu jëriñi war a xam xamle moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa boole na ko ci ay dénkaalim ak la muy moytuloo nit ñi bokk na ci nga dal di yittewu shabaabika qabla haramik maanaam sag ndaw balaa ngay màgget boo xoolee ndaw tënkuwul li nga xam ne mooy sabab mu ñëw ci kaw suuf bàyyiwu ci xel du génn ñetti mala du ko génn ndaw bu bàyyiwul xel ci li tax mu ñëw ci kaw suuf xàmmeewul ràññeewul du génn ñetti mala imma an yakuna himaaran wa imma an yakuna kalban wa imma an yakuna asadan yaftarisu nas kon benn rek moom ndaw loolu nekk mbaam bu ngay jëfandikoo di ko sëf rek boo paree nga nga yebal ko wala mu nekk xaj buy jonkoon di wuttu ay nit bu ñu jógee mu topp ca mu taxawee ñu taxaw bu ñu ko xoolee mu baw wala mu nekk gaynde koo xam ne moom bànnee xam la bëgg ku mu daje rek woñ la jël ci yow la mu bëgg kon ngir mucc ci ci ko mala yi moo tax ñu wutal ko taxawaay nu mu mën a mel kon dawul shaban kon borom bi subhanahu wa moom moo baaxee doomu aadama sàkku ko fii ahsan taqwim wa zayyanahu bil ilmi wal aql sàkk doomu adama baaxe ko taar ni ko defaree waaye itam nag rafetalee ko xam-xam ak moo tax borom bi ndamoo ko ci wàllu doomu adama wallahu axrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun kon jumtuwaay yooyu borom bi subhanahu wa ta'ala tudd na ko di ko ndamoo te moo yey ngir ndamoo ko kon ndaw li na xam ne moom ñépp yem ci asl axrajakum min butuni ummahatikum laa ta'lamuna shay'an kon yow ndaw koo gis mu yéem la ci xam-xamam ci xaralaam ci tàggatoo juddoo ko kon bul jombale yow war nga mën a mel ni moom bal war nga koo mën a raw ndaxte borom bi subhanahu wa moom day maye rek te joxe na judduwaay te dangaa juddu xamoo moom daa juddu xamum borom bi jox ko la muy xamee mu jox la la nga xam ne lool ngay xamee mooy as-sam'u wal basar wal fuaad dégg nit bu waxee man ngaa dégg nit bu bindee man ngaa gis am nga xol boo ko takkee loo xamul mbaa loo mënul ci farlu dong la waaye borom bi subhanahu wa taala jox na la jox na la cawarte gi te jox na la jumtuwaay yi kon doomu aadama boobu dafa war a bàyyi dafa war a bàyyi xel ndaw moom mooy imaadul umma wa amaluha mooy support fi ñuy jëfandiku ngir taxaw ndaw fépp foo dem rek ñoom lay dal di doon suñ ko jubalee suñ ko jubbantee suñ ko jàngalee mu dal di dégg topp kon xeet boobu day dal jëm jëm ci kanam xeet boobu day dal di dëgër dañ koy yaakaar te dañ koy ragal kon ci anam boobu la charia yittewoo lii nga xam ne mooy ndaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu wax ne uusikum bi sababi li ma leen dénk ci ndaw yi mooy yiw jàngale jubbanti yërëm laay bi loolu laa leen ci loolu laa leen ciy dénk ndaxte su ngeen jëfandikoo loola kon xeet bi day gën a dëgër day am taxawaay ndaxte borom bi subhanahu wa taala def maa tànn yónni ma fa xaalafani shabaab wa xaalafani suur borom bi subhanahu wa taala def maa yónni ndaw yi dar ma wóor ma loolu moo tax gis nga daawa bi li nga xam ne noonu la dëgëree li nga xam ne noonu la xam-xam bi mel ni ñu farlu parce que subbaan ñu dëgër lañu ci seeni yaram ñu dëgër lañu ci seeni xelaat ñu dëgër lañu ci seeni taxawaay mu ne waaye boo seetee mag day daal di jafe ndaxte mag ñi man shabba ala shay'in shaba alay koo xam ne moom nekk na ndaw nekk ci dara ba béy jaaw ca jubbanti baa soppi baa yenn yi dee doon lu jafe lool ndaw ni ko borom bi subhanahu wa taala sàkkee mayee ko ni day def ci moom xër wa xubbul ibtila wa tajriba day def ci moom xër ak bëgg gis lu bees ak loo gis rek bëgg koo ñamba bëgg koo xam kon loolu mooy tax day sawar nekk ku pare dugg ci lu ne kon nag bu xamul taxawaayam xamul jubluwaayam mooy ñetti mala yi ñu junjoon ci gannaaw te yépp nag borom bi subhanahu wa taala na ko yépp borom bi subhanahu wa taala na ko te doomu aadama warul mel noona warul taxawee noona kon ndaw boobu nga xam ne loolu mooy war a doon taxawaayam te loolu mooy amut solo boo seetee day nekk taxawaay boo xam ne mu dëgër lay dal di doon ndaw boobu moo tax ñu bëgg mu dal di bàyyi xel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leeraloon na ko ci loolu pégal ko ci asaba al mubasharuna bil janna muy assuada jaalana allahu minhum shabun nasha'a bi ibadati rabbi ndaw boo xam ne daa màggee jaamu borom bi loolu nag mooy orientation bi nga xam ne fa la rek la ndaw mun a ne mu nekk koo xam ne day jëriñu dal di jëriñe mooy ndaw bu xam boromam ndaw bu jaamu boromam ndaw muy xelaat ci boromam ndaw buy xelaat ci dundam ndaw boobu mooy ki nga xam ne moom la sharia di dal di euh, junju ndaxte bu melul loona yitteem taxawaayam bu nekkul loola day nekk farisa kulli day nekk koo xam ne def fii nekk rek lu ñëw rek jaar ci moom jëfandikoo ko ba am la mu ba am la mu bëgg loolu moo tax boo seetee xaru yatafannanuuna fi tadlili shabab wa shabaat boo seetee occident léegi dañuy bari ay façon yu baree bari yu ñuy war a jëfandikoo ngir këf shabab yi maanaam ndaw yi lu ne rek dinañ ko jéem a def pour mun a ñot di ndaw yi ñu jëm ci ñoom ñu jëfandikoo leen fii axraad yi kon kooku nekk na lan nekk na mbaam parce que yow dañ lay jëfandikoo rek wala yakunu kalban wala mu nekk koo xam ne moom rek la amal affaire amul ak affaire ak leneen parce que hada wal kalb xaj moom boromam rek kon noonu mu koy gëmee noonu mu koy toppee kon bi masaabati kalbi jéem na ci moom manul loolu jéem na ko def mbaam chapo lànk na munu ko jéem na ko def xaj chab boobu lànk na nanguwul lan moo tax li gën a bari bu dul diine yakul li aji almuwaatana ñu ne moom nationaliste la kooku mooy alladi yataxawal ila asad kooku bañal loolu bañ yooyu yépp demul ci lenn kooku mooy nekk nag léegi gaynde moom bañ rek la xam fàdd rek la xam yàq rek la xam ubbi sulli musiba rek la xam amma ida kaana mutadayinan fala dina tëyooyu yépp mu nekk xaduman li diinihi walimujtamaihi wali nafsi kooku bu fekkee diine la day mujj a nekk ku taxaw kuy jëf ngir réewam kuy jëf ngir diineem kuy jëf ngir boppam foo ko gis ku mucc ayib lay doon foo ko gis ku leeru xelaat lay doon foo ko gis ku dëgëru taxawaay lay doon waaye fu mu taxaw rek ku am yaakaar lay dal di lay dal di doon ku ñu respecté laay dal bi doon ndaxte ci lan la ci diine bi nga xam ne moo nekk ci moom wala yanduru illa al xaq moom du xool lu dul dëgg kon dëgg boobu nag la ñu bëgg mu nekk taxawaayu shaab boobu nga xam ne mooy moom lañu soxla fi ñu toll ci tolluwaay yii bizzat ndaxte xam ngeen adduna bi tollu na tolluwaay yoo xam ne xelaat yi ni ñu wutee xelaat yi ni ñu bëree ak yàqkat yi te amul kenn kuy jóg illa hadafuhu shabab wa shabat ku jóg rek moom xelaat bi fim ko teg mooy ndaw yi rek moo xam góor la moo xam jigéen la ndaxte loo yëkkati te ndaw bokk ca rek ngir mu jëm ci kanam day doon jafe bal laa yumkin du mun a dem ci kanam kon ndaw yooyu nga xam ne ñépp ci ñoom la jublu wa kadalika subhanahu wa taala borom bi subhanahu wa taala innahu la yaajab bi laysa alayhi kabwa moom ci boppam borom bi day bégee ndaw boo xam ne amul ay pakastal ak i tolof tolof borom bi subhanahu wa taala da koy bégee borom bi subhanahu wa taala da koy jàppale da koy jubbanti kon ndaw bu xamee loolu daa war a taxaw nag ci taxawaay bi nga xam ne moom la war a moom taxawee bokk na ci taxawaay bi nga xam ne moom la war a taxawee mooy lii tax umma jëm kanam lii tax xeet jël jël kanam kon bokk na ca ataxaaluf wal ittihaad wa taawun alal birri wa taqwa ataxaaluf ñépp fexe jàppante ñépp fexe jàppante loolu moo leen yóbbu ci ittihaad ñu dal di bennoo moo leen yóbbu nag gannaaw bennoo boobu mooy jëriñante ci seen diggante moo am benn anam boo xam ne dañ koo sàgganee ñi leen jël ko te ñoom niñ ko jëlee mooy fexeel ñu waajal mooy al awlama bu ñu ne mondialisation ña ñuy xaar ca anam googa mooy asaba ndaxte mondialisation dëgg dëgg dëgg boo ko xoolee mooy fexeel diine bi tudd al islaam toroxal doomu aadama ki ñuy dàkkalante al muslim ndaxte dëgg dëgg mooy muhaawalatu taf tawxiidil afkaar wal nuzum al wal alaaqaat al-dawliya loolu la ñuy ci al al awlama mooy mondialisation baat bi boo seetee ci dictionnaire arabe yi amuloo mais boo delloo al alquranul karim nga gis ne kañ la ko borom bi subhanahu wa junju yàgg na alhamdulilahi rabbil alamin ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin mais gannaaw ataxaaluf wal ittihaad wa taawun desoon na fi afkaari muslimin ci seeni xel ñeneen nas ay caaxaan ba wone ne ñoom ñu ngi ci nas ay caaxaan ba ñu wone ne ñoom ñu ngi ci te loolu la ñuy won ñu ngi ci taxaaluf ngi ci ittihaad ñu ngi taawun waaye ndax seen taawun mooy suñu taawun alal birri wa taqwa la وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى mais ci gis-gis ñoom ñu ngi ci dañu indil ñu mbir mooma mbir moomu nag mooy fexe méngale xelaat yi loolu am solo nag bàyyi ci xel yaani seen taxaaluf ak anam mooy tawxidul afkaar fexe méngale xelaat yi والنظم الاقتصادية والعلاقات الدولية loolu bu paree lan moo desati fexe ba méngale seeni xelaat mu nekk benn ñu bokk nañuy xelaate fexe ba ni ñuy fàggoo yoon yi di benn ñoom ñu saytu ko dal di ko yore fexe ni ñuy jokkoo lii tax ñu mun a jokkoo mu nekk ci seen xelaat ñoom kon maasa baqiya lil muslim ayna mazahiru diin kon loolu bu amee lan yow jullit bi loo dese dese doo dara parce que xelaat yi dem ci monde bi yépp léegi mooy xelaat yooyu yooyu yépp dem na ba léegi ñoom méngale na ko kullu man iltazama ala taalimi diinihi bi tawfiri lihyati wa taksiri lmalabisi fa huwa musharun bil irham kalima wahida te hada juzun la yatajazza min diinina mazahirun min mazahiri muslimin multazim kon tawhidul afkar mu ngi mel ni ñoom dem nañ ci lu lu yaatu lool mooy lan fexe bokk xelaat bépp jullit bu am yëg-yëg ci diineem bàyyi ab sikkiñam bañ a buubal ay yéreem kooku dañ koy joxoñ ñu ne terroriste baa ngi mais ñoom réussir na ci tawhid boobu ñu dem nag ci nuzumul iqtisadi wa banawha ala turuqi ribabiya ñu dal di ko nos teg ko ci yoon yoo xam ne mooy yoonu riba wa alaqaatu dawliya même booy ñaan visa ku mel ni ku mel ni bu leen ko may xalas hadihi alaqaatu dawliya il force nga nangu boo bañee ñu fard la ko xaalis bi ak xaalis bi ak xaalis bi ci ku mu jëm ngi jëm ci ku mel ni ku mel ni la hasa yu ma woon kooku dara warul yegsi ci moom ndax loolu daa nekk mbir anam boo xam ne dañuy jàpp ne anam bu bees la anam bi beesul xelaat yooyu ak yëpp jaar nañ ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir daawa bi commencé di tàkk mu bañ a wéy mu bañ a dem fenn lépp jéem nañ ko bu dee ambar bu jéem nañ ko bu dee fexe lii nose mbir yi nekk kéeféer jéem nañ ko bu dee économie bi lépp jéem nañ ko hal najahu la ndax ñoom réussir nañ ci loolu ah lu tax bi quwati iman wa siqati billahi subhanahu wa taala wa mutaabaati Mustafa sallallahu alayhi wa sallam loolu moo leen may xelaat yooyu yëpp réussir kon tey loolu dong moo ñu mën a may xelaat yi du réussir hazala budda bi bi quwatil iman ngëm koo xam ne bu dëgër këng la waaye assiqatu billah foog nga wóolu borom bi subhanahu wa taala ci say mbir nga xam ne moom la waaye foog nag tajridul mutaaba li Mustafa sallallahu alayhi wa sallam foog nag roy bi bi ñuy roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu nekk mbir moo xam ne mbir mbir mu leer la ci loolu lañu borom bi subhanahu wa taala joxoñal waatasimu bi hablillahi jamian wala tafar mooy ci buumu yàlla gi bii laa ilaha illa allah kon boobu mooy foog ñu dellu ci yi ñu wa te war naa mun a nekk limaada laa nataxaalaf limaada laa nuwaxidu afkaarana لماذا لا نتحد لماذا la nataawan kon loolu dañ koy xelaat lu tax ñun mënuñu dëppoo lu tax parce que xelaat loolu xelaat la laysa diin kon xelaat yooyu bu fekkee ne imaan am na ixlaas am na dinañu ci ñëw waaye yaa axi afkaar te aksarul afkaar تكون من الفرق الدالة من الفرق المحدثة من الفرق السياسية من الفرق الخروجية kon bu fekkee léegi anam yooyu buñ nee afkaar xelaat boo ko waxee lu ëpp day nekk ay mbooloo yu politique wala ay mbooloo yu génn topp wala ay mbooloo yu réer yajaluna asiya niqaat alaamat boo xoolee seeni mbir lool la ñuy teg ay point lii nii la lii nii la lii nii la kulluhu alkitab wa sunna bariun min kon ñun limaada la taxaalaf alkitab wa sunna kon xelaat yooyu nga xam ne yonente bi sallallahu jëmbat na ko ci ashabab ñu dal di ko gëm dal di ci taxaw même bu fekkee ne li leen dal mën a ci dara waaye dina ci jéem dara sabran ala yaasin inna mawidakum janna naam ñu ngi leen di mbugal ngir aqida bi waaye rasul lu mu ci mën a mën a gu ci lu ne waaye nag romb leen ahlan romb leen mu leen muñ leen muñ leen rek rendez-vous bi aljanna hada yaziduhum quwwa siqa yaziduhum tadaamum loolu leen di taxawaay ak ndëgërlaay ak kóolute muñ leen rek suñu rendez-vous aljanna kon loolu fokk rek ndaw yi dal di ci bàyyi xel bu baax beneen bi mooy laa budda an yatasallaxu bil ilmi wal maarifati wal amal bi amrillahi tabaraka wa taala wa rasulihi wal ibtiaadu an naima kon fokk rek ñu dal di góor-góorlu nag làmboo xam-xam dinañ ci ñëw bu soobee yàlla làmboo xam-xam ndaw waru toog te doo xam xamal foo mun a ne li ñu jiital ci xam nag mooy al ilmu shar'i mais daa kowantewul ak beneen xam-xam ne ca léeg ñu ne école yi école alamaaniya nangam ak nangam déedéet yow bii ndaw jullit bi dëgër waroon na matière bi ñuy tuddee philosophie karaw ci nga xam ni ñépp delloo nañ la ne yaa ko dàq yaa ci raw nga walbatiku di ko jàngale tu darrisul kuf na am mais gannaaw ba nga ko leeralee ni nga koy leeralee tu fanniduha bi adilla sharia nga wala na lii du dara bil adilla sharia say nattaangooy ñoom dañ koy saxal pour ñu gëm ko appliquer ko te yaa leen ci raw na bu ngeen toogee nga noppiloo leen mais yow nag say ndaw dinañ la naw ci ni nga ko manee waaye boo demee ba dars ba jeexal gis nga lii nag laysa shay'an hada umur fi zabala lianna allaha tabaraka wa taala yaqulu kada wa kada lianna mustafa sallallahu alayhi wa sallama bayyana wa barhan hada kufr lii yéen la fexeel pour bu leen dem fenn leeral nga ko dinañ ci mun a xamee waaye won nga leen ni lii du dara moytuloo leen nga ko dinañ la naw ci sa taxawaay parce que yuriduna an yakunu mislak kon loolu xelaat la loolu xelaat la xëy na dinañ ñëw fi ñuy gën a xóotali loola kon ndaw bi lu mu métti métti métti laysa lahum tajruba fil xayaa gis nga adduna adduna daa laaj expérience de adduna neexalul kenn fokk expérience lan moo lay may expérience u adduna mooy ak taa mooy nangu dégg nangoo topp bàyyi ci xel loolu boo ko defee rek macha allah borom bi ne wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faaza fawzan azima fokk nit loo mun a doon loo mën a am foo mun a toll laa budda min as-sam'i wa taa fokk rek balaa ngay mun a jëriñ jëriñ laa budda nga muñ nga nangoo dégg nga nangoo topp ku mun a doon safaan ba bu amee du baax wa man ya'si llaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina bañal yàlla ak yonentam moom boo ko defee yàqu la kon ndaw ci niñ ko junjee woon fale shaabun nashaa bi ibadati rabbi ashaab alladi laysa lahu kabwa ndaw bi nga xam ne moom la muy jiital ci léppam mooy jaamu yàlla li muy def da koy jaamoo borom bi subhanahu wa taala nag boo ko seetee dëgg-dëgg mooy jubluwaayu tawxid al uluhiya mooy jubluwaayu tawxid al uluhiya mooy subhanahu wa taala bi afaalil ibad mooy wéetalee borom bi subhanahu wa taala ci jëfu jaam yi ndaw bu dem ba yëg ne tasarrufaatuhu wa harakaatuhu wa sakanaatuhu ibadatun lillahi tabaraka wa taala in waafaqa shara wa in xaalafahu fa hiya maasiya ndaw bi nga xam ne góorgóorlu ba yëg ne ay yëgatoon ay waxam ay jëfam ay noppeem lépp jaamu yàlla la su méngoog sharia su wuuteeg sharia bi mooy yàlla la kon kooku ngir ñu orienté ko ci hifzi sunna wa xidmatil umma day nekk loo xam ne lu yomb ci loo xam ne mooy sàmm sàmm sunna ni ngeen ko xamee al ilmu yaxtifu bil amal fa in ajabahu istaqarra wa illa tahal xam ngeen ne xam-xam moom boo ci demee rek mu naan la jëfee ma boo d'accordee jëfee ko rek mu toog waaye boo bàyyee jëfee woo mu dem yoon mooy li gars di wax léegi rek mat exercice loolu la jàngalekat yi di wax ne boo bëggee aay ci mat niñ ko terroriser léegi ba ñépp ragal ko ba ñëpp d'accord ne léegi mooy tariqul janna asa min al afkar foofu ah? ne lu mu tax nga man exercice foo toll rek dafa exercice rek exercice rek loolu boo koy def mu dangay dangay dangay dal di dëgër dangay dal di def neneen ak neneen kon loolu doomu aadama bu ci bàyyee xel rek loolu mooy jëf bi ñuy junjune xam-xam loolu moo koy saxal boo seetee doomu aadama bi azkar yi nga xam ne tatakarrar asbaabuha takunu asaddu xifzan inda al mar yi nga xam ne lii tax nga def ko dafa bari noonu boo seetee yooyu doo ko fàtte danga koy man def lay jege day day day waaye yeneen yi nga xam ne mun ngaa toog mu yàgg sabab bi tax yóbbee la ca loola amul léeg-léeg dangay toog ba fàtte ko doo ko xam sax ki nga xam ne du julli ci jàkk ngir mu xam du du a duxulil masjid wa xurujihi léeg-léeg day nekk lu jafe parce que toog yàgg waxu ko def yoonam nekku ci kon ndaw bi day bàyyi xel ci anam yu mel noona kon déggal yàlla déggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa am ay yoon yoon yooyu nag lañuy sàmmi sunna yoon yooyu nag lañuy jëriñee ak yoon yooyu nga xam ne mooy yi jàppale ba nga mun a déggal borom bi nga mun a roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu bu dëggoo rek fa anta nafun mahd dina fekk yow lan la yiw yiw kese wala baraka ndaxte al baraka mooy ma bala ma galaba xayruhu wala sharri loo xam ne ab yiwam ak mbaaxam moo noot safaan ba ñu ne ko hada xayru ndaw boobu taxaw ci loolu nag moom mooy nekk xëyr ndaw boobu nekk xëyr nag foo ko fekk rek yakunu xëyr foo ko mën a fekk yakunu xëyr lu mu mën a doon bu ngeen ca demee rek da gis ne mooy mooy alxëyr benn étudiant doon ma ko wax université Dakar mu ne moom daal li ko gën a jaaxal mooy sabab yi nekk ci mosquée bi mu ne ñun daal sabab yi ñu jaaxal lu ñu daje daal ñoo ñu man bu ñu demee fa ñu jàng bu ñu defee examen ñu raw bu ñu duggee ci jàkk ji ñu jiital bu ñu génnee di def ay ndëgër laay ñu ëpp ñu fon li maaka يستمدون النور من الله تبارك وتعالى وطاعته صلى الله عليه وسلم lu ko waral dañuy jëlee leer ci borom bi subhanahu wa taala di roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yow man ngaa fanaan ci caaxaan moom ida salla al ishaa lajaa ila matjai wa dakara allah inda nawmi wa inda qiyaami wa inda xuruji wa inda duxuli lil hammam wa inda zihabihi anta gafilun an hadi kon seetal ndaw bi yéenaay bokk reer campus yow boo reeree faral nga jël ci yeneen dem seetaani télévision génn dem caaxaan dem defi leneen moom ba mu paree foofu jóg na jëm na néegam ba ci lalam tudd na ba mu yeewoo tudd na muy génn noonu ba muy dugg duus ba noonu ba muy génn noonu ba muy dem jàkkate noonu hakada kon kooku nga bugg a yem ak moom ana naa la ka daalik ndaw boobu la lañu soxla kon kooku fu ngeen def nii rek nga xam ne dem nañ kon loolu lañuy soxla ci ndaw yi Hassan dal dina ko joxoñ ci ndaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba nga xamee mu ngi tàgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa in kaana fi nnaasi sabbaaquuna gayruhum fa kullu sabqin bi adna sabqihim tabaw haawulaay humu shubaab mu ne su fekkee ne njëkkalante ilal nit ñi ñépp a koy def mu ne waaye ki raw nit ñi moo nekk naare ñi topp yonent bi ki raw ñu def léegi compétition waa ji raw ñépp ñu ne kooku raw boo ko jëlee mu ngi topp ci ki jël ndaare ci saxaar borom bi subhanahu wa taala loolu la saxal wa min almuminina rijal sadaqu ma ahadullah alayhi fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila ñooñu subbaan ñooñu nag la ñuy joxoñ lidalika xaqaqu ma xaqaqu moo tax ñoom li ñu def def nañu ko ba borom bi subhanahu wa taala seede na ko seede ko mu leer ñooñu boo demee ci ñoom da gis ne afkaaruhum waahida seeni xelaat benn la kayfa yuxaqiquuna li hada diin makaana naka la ñuy def bi diine ji taxaw nit ñi jëfeeku kon seeni xelaat yépp loolu taraahum yataxaalafuun wa yattaxiduun wa yataawanuun gayru shahidin al ansar da nga leen di gis ñoom seeni xelaat benn la ñu dal bennoo ñuy dimbalante ngir yàlla loolu boo ko seetee ci ansaar doy na yusiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim keneen ci ñëw moo leen gënal seen bopp mata nasil ila hadi al saamiya kon kañ la ñu ci xelaat yu kowe yooyu kon ci loolu la wax ne bu ndaw yi jaaree ci yoon bii dinañu yegg foofa te dinañu sam sunna te dinañu njëriñ xeet ñu ne benn bi ci jiitu mooy ixlaasu diini lillahi wahdahu la sharika la fi lqawli wal itiqaadi wal amali wal xubbi wal kulluhu ixlaas foog ñu sellal diine ji ci borom bi subhanahu wa ci bu ñu waxee loolu feeñ li ñu fas loolu feeñ bu ñu jëfee mu feeñ bu ñu bëggee mu feeñ bu ñu bañee mu feeñ bu ñu jëfee bu ñu bàyyee loolu mooy feeñ بل نحن عباد الأفكار سواء خالف السنة أو وافقها ñun suñu jafe-jafe mooy suñu bokkaale tey ci jamono ji ci shabaab yi mooy ku nekk day jaamu xelaat ubbaadul afkaar al mat bi fahmihi al xaas ida kaana yastati an yuqni aka fa lillahi alhamd laa yastati an yuqni aka yarmika bil alqaab imma bil kufri wa imma bil fisqi wa imma bi tahaawun laa hawla wala quwwata kon boo seetee li ëpp ci xelaat nit ki xelaatam bu la ci woowee man laa rek mu ne waaw mais bu jéemee jéem bu mu wuutal la melo ne kii dafa génn topp kii yéeféer la kii yéeféer la wala kii naafeq la wala kii xamul dara wala kii gëmul dara subhanallah bi afkaarika anta ci say xelaat aksarul afkaar min su'il yahud te li ëpp ci xelaat yooyu mooy jëfug yahud summa ba'da dalika yunziluuna ahkaaman بالتأمين أو بالتخصيص أو بالتأييد من هنا الخطأ gannaaw ga nag acte yi aaya la jàngal ay ahadis lay dal di jàng léegi nag bu ko def application mu général mu def ko en général nii wala mu def ko particulier wala mu joxoon baaram sax duut ko mu ne kii la wala lii la woon hada afkaar lii say xelaat la kon suñu jafe-jafe yu rëy rëy la am ci anam booga loolu ndaw bu ko bàyyi xel rek yow lii ngay wax حقيقة أم فكر من عندك أو من غيرك li ngay wax nii lan la lii sa xelaat la yaa ko moom wala xelaatu keneen kooku lu mu joteeg charia bi la chek mais ñu bëri nag mënuñu koo teqale parce que keneen moo lay jëfandikoo yow loolu ndaw bu ne da ci war a xel kon loolu borom bi subhanahu wa taala junju gëm ngëm bii ak sellal bii ñu joxoñ qul inna salaati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaati lillahi kon maa taraka shay'an dunyan wa uxra sama lépp yàlla la ida kaana muxlisan mais du am jafe-jafe yow woo nga di ci sa xelaat nanguwul ay muskile ban problème loolu dina taxaw an ka tartakibu zunub loolu day tax yow nag léegi ngay fàggu bàkkaar nga toog nga ne diw yéeféer la faqad baa biha ahduhuma kenn ci yéen doon na yéeféer nga commencé ci lan ci ixtiyaar wan namima wal ifk mu dugal la ci lan nag mu dugal la léegi ci jiw mu dugal la ci rambaaj mu dugal la ci sos faqad taax kooku xalaas jeexal ngeen dem ñaar yoon ñetti yoon dootul jege mbooloo mi parce que yatahaddas ma aman yatanaasax ma aman parce atahaddus wa tanaasux mu nekk loo xam ne ci ki lay yokk ku la ëpp expérience waaye ndaw yoo xam ne expérience amagul xam-xam ñoramul bu fekkee ne ñoom dong la yaani fii daa'iratin muxlaqa kon kañ la ñuy dindil ko yataraddaduna afkaar subhanallah min sunnil yahud kon loolu il faut ñu daldi ci bàyyi xel ndaw bi bu ko sàmm sunna du looloo yoon wi de yoon wi du noonu sunna duñ ko sàmmee xas ku la ëpp expérience sunna duñ ko sàmmee raw doonte mu ngi parce que laysa maasuman il faut ñu d'accord ne am na boo xam laysa kufran foog ñu d'accord ne bàkkaar la am na yoo xam ne laa yuxrijul insaan min al milla du tax ñu bàyyi ko bu fekkee ne ku bàkkaar nga bàyyi ko aha léegi kanaa nga de kon loolu il faut ndaw yi dal ci bàyyi xel jaanib bi nga mun a jëriñoo ci moom jëriñoo ci jaanib boobu fexeel noo jubbante ki nga bàyyi tuuma ko gàddaay kooku noo jubbante ndax yow xaqiqatan iman bi ngay woote mu ngi ci yow ndaxte bu ci nekkee laa yuminu ahadukum hatta yuhibba li axihi maa yuhibbu li nafsi kon hada alladi haajatahu wa taraktahu wa axrajtahu min almilla idan laa tuhibbu lahu aljanna idan hukmuka alayhi fi nnaar kon kayfa takun muminan anta kooku nga génnee ci daaira bi yépp kon yéenee ko li nga yéene sa parce que boo gisee ngay yëngatu boo gisee ngay woote boo gisee boo gisee boo gisee dangaa bëgg aljanna aljanna boobu nga bëgg na nga xool benn waay nga génnee ko fi daayiratil janna nga bëgg ko ci génnee yow nga fàggu ci moom bàkkaar dañ ko xas dañ ko jëw dañ ko sosal loolu nekkaan nag waxtaan bi nga xam ne moom la ñuy waxtaanee parce que amul expérience maa fi tajruba waxtaan yépp delluwaat ci loolu al ittihamaat wa tanqis wal afkaar ci loolu rek lay dellu si kon mata yasuduun kon ñooñu kañ la ñuy wala kañ la ñuy sàmm sunna boobu ndax dañuy jàppale léegi as sunna fi l afkaar sunna mutahara sunna dafa set dafa laab Mustafa sallallahu alayhi wa sallam hafizaha subhanahu wa taala bi hifzihi sunna mukammilun lil quran wa mufassirun lil quran wa muqayyidun lil quran wa mutliqun lil quran wal baadu xaalu naasixun lil quran kon loolu il faut ñu xam sunna nekkul mbir moo xam ne ci xelaat laay doon wala ci orientation yenn laay doon laa sunna benn xaaj la ci quran loo xam ne duñu teqale ko ba yàlla sàmmee ay kàddoom garanti ko ci la sàmmalee as sunna al mutahara mooy firi quran mooy leeral Qur'an mooy tënk Qur'an mooy boyal Qur'an bal wax nañ ne sax am na sunna boo xam ne mooy nas mafhum ci Qur'an wala Qur'an ci boppam kon loolu ñu xam ne poids boobu la sunna dal di yore kon sunna boobu nekkul anam boo xam ne da ngay xelaat rek wala da ngay def ren rek nga ne man sàmm naa ko la def naa nangam al amru laysa kadalik kon fokk ndaw boobu nga xam ne moo ko bugg a sàmm moo bugg a jëriñu jëriñi kon laa budda benn boobu mu taxaw ci lu leer mooy al ixlaas athani al inayatu bil quran tilawatan wa xifzan wa tadabburan wa tafsiran wa amalan fa huwa xayru kitab unzila ala asrafi rasulin ila xayri ummatin uxrijat linnas kon yëpp ay misaal la yi yépp ay ngëneel la yoo xam ne ki gën rek moo ci mun a taxaw waaye lu moom du mun a sotti mooy yittewoo quraan yi dangay afkaar yi bari de wax yi bari na waaye al inaayatu bil quraan taxaw wax yi ni ñu baree ku nekk ci loolu mu ne man damay jaamu yàlla kon dinaa ubbi xalqa ci jàkka ba may julli udarrisu abnaa al wala atadaarasu maa ixwaani alquran qalil daa néew te mooy deuxième position yittewoo alquran karim ku bugg a sunna foog nga yittewoo alquran karim ku bugg a jëriñ xeet bi foog nga yittewoo alquran karim ndaxte bii shifaau xol yi loolu moo koy moo koy laabal leeral ko alhadidu yasda alqulubu tasda kama yasda alhadid qila ma jilauha ya rasul allah qala tilawatu alquran mu ne xol yi dañuy koma kalla bal raana ala qulubihim ma kanu yaksibun wax yu bon yi jëw yi tanqiisu nnaas ixtiqaaru ulama hada yuxatti alqalb loolu day dal di tëj xol yàq ko mais borom dootul mun a baax waaye yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne mën na koo laabal tilaawatul jàng Qur'an mun naa laabal xol boobu ba mu nekk bu laab kon Qur'an foog ñu yittewoo ko ci ada mi ñu koy jàngee ñu wëttu ko foog ñu settantal ko di ko firi ndaxte akbarul muskila al tanzilul ayat fil waaqi kooku am na benn partie bi nañu ci ñëw jafe-jafe yi ñu am li gën a rëy léegi mooy appliquer Quran bi kër jël benn aay rek gis benn waay rek atte ko ci li ci gën a bari nag mooy azunub allati summiyat kufran ay bàkkaar yoo xam ne alquran tuddee na ko kéeféer wala yonente sallallahu alayhi wasallam tuddee na ko kéeféer ay bàkkaar wa man lam yaxkum bima anzala allah fa ulaika hum kafirun léegi yow ci sa bopp nag naka ngay aaya boobu ci li ngay gis ak ci say xelaat bal tusdirul kuf ah yooyu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la kiram ñoo ko appliqué woon naka la ñu dundee woon naka lañ ko firee woon kooku mooy sunna sunna boobu nag ngi nga sàmm ko wëttu ko méngale ko anam yooyu ah, nga yaxtaaj ila al inaaya kooku am expérience foog nga am expérience kon bu fekkee na ci am expérience ci boppam nag kaafi bi hukmika anta muqassir bi hukmika anta daif bi hukmika anta yow ki am expérience raw la ci jiitu la ci yow nga jàpp ne moom yéeféer nga jàpp ne moom ku gàttañlu la nga jàpp ne moom ku ku ku sàggan la kon expérience foo koy jële dégg-dégg foo koy jële mi nay ndaxte jibril bi wàcc di nga jàng ko moom noppi woon na ci ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laa tuharrik bihi lisaana li taajala bihi inna alayna jam'ahu wa qur'aanahu fa ida qaranahu fattabi qur'anahu thumma inna alayna bayan hada bayyana lahu ma bayyana lahu wa mustafa sallallahu alaihi wasallam ma qassar wa bayyana kulla shay yahtaju ila albayan wa tarakana ala almahajjati albayda la yazigu anha ila halik borom bi subhanahu wa taala jël na garanti ne dina la leeralal mais leeralal na ko aaya mais aaya yooyu borom bi subhanahu wa taala war ko leeral la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leeral na ko ay sahabatul kiram nëbbuñu ko leeral nañ ko ci taabiin ba mu yegsi ci la ci raw expérience na nga ne xalaat boobu du boobu bii la war a daw kayfa tafxazu taxfazu sunna kayfa tanfau umma kon nooy denc sunna noo koy xamee nooy jëriñee بل تصبح فتنة للأمة وضياء للسنة kon yow looy nekkaat ah, da nekk fitna ngir xeet xeet bi boo waxee muy musiba boo jëfee muy musiba bal yow da réeral sunna parce que lii walbate ko ñu ne loolooy sunna lay sa zaar leneen laay daldi doon kon loolu nit ki daldi ci daldi ci bàyyi xel ndaxte quran boobu boo ko yittewoo ci man koo jàng man koo tali man koo settantal man koo firi nga méngale ko ak say mbir mooy téere bi gën ci téere yi ñu wàccee ñu wàccee ko ci yonant bi gën ci yonant yi ko jiitu woon waaye mu méngoo xeet bi gën ci xeet yi jàll afdal kitab wa afdalu rasul wa xayru umma anta is bi yàlla téere bi gën ci téere yi yonent bi gën ci yonent yi xeet wi gën ci xeet yi yow nga dund ci nga nekk ku yore drapeau fitna ak tafriq wa tafsiq wa takfir ah mbokk du loolu de kon naka laay nekkati ci li ngay askanaloo kon naka laay nekkee afdal kitab kon ki ngay roy naka laay nekkee afdal rasul xeet bi nga méngool naka la ne ko xayru ummatin uxrijat linnaas kon loolu nit ki ci ay taxawaayam lay dal di àtte yooyu loolu lu sax la mais boo gisee yow nit ñi gisuñ ko ci yow kon anta nazihi te ani tayuk qawwim afkaarak wa xayir asxaabak boo ko gisee rek kon xamal ne yow yaa wàcc yoon bi kon changer say xelaat soppil say àndandoo balaa balaa muy rëcc balaa nga wax ne laa laytani taxastu ma ar yaa waylataa laytani lam attaxis fulaanan xalila borom bi leeral na loolu balaa ngay àgg ci loolu ndaxte wàcc nga yoon parce que ñett yi mënul daje mukk nit ki di dund ci saxaawa di dund ci adaawa di dund ci tanaafur wa tadaabur loolu mënta ne yii yépp daje ñuy dund ci noonoo ñuy dund ci teqale ko ñuy dund ci fitna ñuy dund ci jamante xeexante yéeféerlu waaye loolu man tamit kon wàcc nga kon góorgóorlu dellu si soppi nag say xelaat ak fa ngay tibbee xelaat ya soppi nag say àndandoo balaa taxawaay bi ñëw taxawaay boobu nag taxawaay boobu nag ñépp a cay balaa nit ki di yuuxu yaruddu yadayhi ala faahu balaa nit ki di yuuxu delloo ay loxoom ci gémmiñam yow may addu zalimu ala yadayhi fii moom boo jaaxle yuuxu benn loxo la waaye borom bi ne keroog ñaar yi nga sërxal ci gémmiñ balaa ñuy yeggi foofu nga naan torox na lu teewoon ma jël tariqu Mustafa torox na lu taxul diw nekk sama xarit yonent bi leeral na de ba mu leer nañ amul lenn loo xam ne lënt lu ne wax na ko bu dee jëw lekkkatu nit nga bu dee rambaaj laa tadxulul janna bu dee yéeféer loo faqat baa ahduhuma biha kon ndax Mustafa way na la déedéet mu ne boo jëwee mu ne yaa bon lekkkatu nit nga lu tax ngay jëw boo rambaajee mu ne amoo place aljanna yow laa tadxulul janna boo yéeféerloo nit mu ne yéen ñaar am na ku nekk yéeféer mais du demee noonu noonu rek diw yéeféer la rek mu jeex mu ki nga ne yéeféer dinañ seet charan yéeféer la mucc ba charan ñu gis ne noonu li nga wax amul yéeféer kon Musaa sallallahu alayhi wa sallam kon xaqaa'iq yooyu ndaw yi bu ñu buggee dëgër ci sunna fokk rek ñu dal di ci dellu ndaxte diine moom dafa leer al akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum nicmati wa raditu lakum al islaama diina bi dajale na ñetti mbir yi ñu war a bàyyi xel akmaltu atmamtu raditu qabla wiladati haadihi al afkaar wal firaq ah borom suwaata leeral mat na mottali na bég naa ñu jaaboo ma nii boobu xelaat yi ñu teqale ñëwagul maa ngi si def kon yooyu xelaat yooyu teqale ñu na bu ñu buggee jàpp na mooy sharia mooy diine asi tàmba mooy fitna bu métti bi nga xam ne moom yatanaaqalu shaba moom la ndaw lii jokk bi jokk jokkalante maa fi fayda parce que lu leer naññ moo fi ne xàll bu ñu defar ba mu leer naññ loo xam ne lu mat la dara manqué ci loo xam ne lu ñu rëdd la mott li nañ ko amul soxlaatul dara la ziyaada wala nuqsaan te loo xam ne borom bi garanti na ne man day bég na ñu jaamu nii bég na kon bu teeyee itam li borom bi bëgg nga bëgg ci loolu yem ci nekk ci jàmm jàmmal nit ñi yonent bi leeral na ne xayrukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allama alasna nuridu xayri du yiw lañu bëgg kon nañu sangu qur'an di ko jàng di ko jàngale xanaa balaa nga koy jàng ko nga man ko xanaa balaa nga koy firi leer ko ñu firil la ko ñu di la bi kon yoon woowu rek mooy yoon wii tax nga xam sunna wottu sunna jëriñ sa xeet lu dul loolu rek fitna la bi ko ñàtteel mooy al inaaya bi sunnati mutahara wa siira nabawiya fa lana fihima idatun wa ibra wa lana fihima qudwatun xasana liman kaana yarju llaha wal yawma sàmm sunna bu leer bii waaye yitte woon ak siirat Mustafa sallallahu alayhi wa sallam laa siirata rijaal yitte woo dundin yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lépp loo soxla ci xelaat mu ngi ci lépp loo soxla ci orientation mu ngi ci loo soxla ci atte loo soxla ci xam daje na ci siira waaye sànni ko rek topp siiratu rijaal firqatu fulaan loolu mooy sàmm sunna sunna moom ci boppam daa am lu koy sàmm daa am fu koy xamee mooy baadal Qur'an siiratu nabi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw Qur'an bu julli lu bari dañ ko fedd mooy ci siiram kon li ñu jeexal suñu temps ci anam yu bari ñu dellu woon ci siira dina nekk loo xam ne def ñu ciy jàppale bu baax a baax ndaxte lii di quraan lii di sunna bu ñu buggee waaraate mu nga fa bu ñu buggee génnee mu nga ca bu ñu buggee royuwaay mu nga ca waaye ku gëm yàlla ak yonentam yaakaar yàlla dongo nag moo ko mën moom dongo moo ko mën képp koy campagnal fii ci xelaatam Moustapha sallallahu alayhi du moromam kon bul jeexal sa dund ci anam yooyu diw leader la xuz Mustafa sallallahu alayhi wa sallam diw téere yi mu bind irji ila alkitaab wa sunna irji ila alkitaab wa sunna kitaab mooy kalaamullah sunna mooy tasarrufaati nabii sallallahu alayhi wa sallam min qawlin wa amalin wa taqrir mooy dund yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa daaka anil afkaar xelaat yooyu na nga xam ne rek xelaat la moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jinju ko dal di ko leeral leeral boo xam ne nag bu ñu war a bàyyi xel la laa yuminu ahlukum xatta yakuna hawaahu taba lima jitu bi hal hawaaka tabaun lima jaa bihi mustafa sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ne duñu nangul kenn ngëm lu dul la ngay déggee dëppoog li yonent bi xawaa la ngay déggee seetaatal sa bopp ci say wax ci say jëf ci say xelaat hal mu taabiqun li ma jaa bihi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam afkaar wa ahkaam wa tasarrufaat seetal ndax méngoo na ci ay pas-pas ci ay kàddu ay jëf ay comportement ndax dëppoo na ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam indi mu'min laa laa ba am bu dee waaw aha kooku jullit bu dee déedéet nag ah mooy déedéet qaalat al arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulu al-iman fi qulubikum wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum shay'an haka gëm naa rek jullit laa jeex na daal yàlla al-amru laa yatawaqqafu nak la budda an yastaslima afkarak wa tasarrufatik wa nazarak wa sam'ak wa kalamak wa zayyak takun musliman jullit laa rek daa iya rek damay nangam nangam non des na ah ñoom loolu lañu wax xalaat ala ba ah hmm. jullit laa de foog nga tuubal sa xelaat xelaat dañ koy tuubal shaabul muslim bokk la keneen muy xelaatee ah du benn foog nga tuubal xelaat yi xoolin bi dëglu bi wax bi colin gi loolu yépp nekk muslim ñu ne naam huwa sadiq illa hada ma yakun sadiqan kayfa yakun sadiqan li ci gën a jafe nag mooy tuubloo ay afkaar lu ci gën a bëri insaan yuraddidu afkaara suyuiya afkaar ilhaadiya afkaar yahudiya dajale ko nag ci benn anam di wax jàpp ne hada hadihi sunna as sunnatu la tufarriq السنة لا تجرح السنة لا تنقص السنة لا تعير sunna du teqale déedéet sunna du wàññi sunna du sikkal abadan sunna du ñagas déedéet du loolu fa bima rahmatin min allahi linta lahum ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ñagas gën a mun a wax lu ñagas gën a mun a wax lu bon gën a mun a génneel gën a mun a settantal hada laysa min sunna laa kooku du sunna de déedéet parce que borom bi subhanahu wa taala mu sama yërmande nga nooyee nga lewet nit du nekk ñagas nit du nekk bon nit du nekk waxkat lu bon nit du nekk yëkkati fitna nit ki du nekk sikkal nit ñi nit ki du nekk weer nit ki donte def na di lay wax waaye laayus du dagan abadan du dagan fen nga gis nit mu def lu bonam nga weer laayus da ngay jaar yoon bi sàng ko sutura laayee ko biir waye kon anam boobu doomu aadama da ci war a bàyyi xel ki yittewoo lii nga xam ne mooy mooy sunna ñeenteel bi al muhafaza ala salawat al xams fi awqatiha ma al jamaa fi xaqi rajul ndaxte fa hiya imaadu ddin wasila bi rabbil alamin wal fariqa bayna al islaami wal kufr ndaw bu nga sàmm sunna nga yittewoo julli maa ngi fàttaleku yaxya yaxya moom de doon wax ne ndaw boo xam ne tëreegul juróomi julli fil masjid maanaam munagu ko mu ne xaaru ci moom dara lu mu waxit moom jàppul ne lu mun a ne la kooku farlu waragul daal waragul mun dara mais loolu il faut ñu daldi xel parce que loolu imaanu diin mooy kenu diine te moo lay lënkale ak borom bi subhanahu wa taala wasjud waqtarib kon mbir moomu il faut ñu dal di seet nu muy te ci mbooloo lay doon te ay nit lay dal di dajeel kayfa taksibul xibra wal ilm wa sabr kon naka mboolu boobu ngay daje ci julli bi rek naka lay def ba jàng ci ñoom xibra bi ngay am ci moom ci jàng nu lay manee muñ ak nga nekk ku tolérance naka la naka lay jàngalee nizaam mu jàngal la fonk dig parce nodd nañ ko rendez-vous bi taxaw naka la ciy taxawee naka la laabee naka la ñuy sësoo naka la ñuy bëggante naka la ñuy soppante naka la ñuy xamante naka la ñuy jëriñoowante kooku min sàmm fu mu ñu yóbbee tawhidul afkaar kon dañuy bokk ay bokk ay xalaat bokk bëgg-bëgg ndaxte xamante nañu kon loolu nit ki dal di ci bàyyi xel kon julli day tere lu bon day tere lu ñaaw day tax nit ki jege borom bi subhanahu wa taala day tax nit ki daje ay ñoñam waaye day tax mu jubóog ñoom la tusawwunna sufuufakum aw la yuxaalifuna allahu bayna xutbikum kon taswiyati sufuuf day doon sabab jegewante al ilfa wa taawun wa tahaabub wa taaruf kon julli bi ci boppam dina la may lewet ak nooy ak juboo ak bëggante ak dimbalante kon ndaw bi fokk rek muy góorgóorlu ci loolu di ko daldi sàmm mu nekk sàmm ngoo xam ne bu mucc ayib nag lay dal di ci bëgg ko fonk ko xam ko man ko mu jaral la parce loolu dina la dimbale nga génn ci ab naafeq loolu boo ko fonkee taxaw ci li mu war a mel rek da nga génn ci ab naafeq te ku ci ab naafeq rek jortu nan ni dina nekk mustaqim ndaxte naafeq moom yonente bi salaa sallam am na lu mu ci wax afdalu salawaati ala almunafiqina salaatu isha mu ne moo gën a diis kon lan la ñuy ci asqal gën a diis kon bu woyof ci naa fekk amul kon bu fekkee ne yow julli jàppoo ne daa bokk ci melo yi kon yow ngir nga sàmm sunna day doon lu jafe bi doon moo xam ne du mun a ne ngir nga jëriñ lu jafe ndaxte am na lu la dese kon jikkoon naa fekk mu ngi ci te naa fekk moom xam nga tëkku bi ko tëkk ak yàq bi nga xam ne moom lay yàq ak sàggante bi muy sàggan ak taxawaay bi muy def du tee ci jëmm boo ko gisee boole ko ñu baax ñi fa idaa raaytahum tujibuka ajsaamuhum wa in yaqulu tasma li qawlihim ka annahum xusubun musannada hiya al afkar al muxaalifa li hada alsharia al mutahara boo ko gisee ci colinam ci taxawaayam ci yaramam tujibuka ajsaamuhum waajaa ngi waaye nag wa in yaqulu subhanallah su ubbee débat am naa ko ci mun masal kii kat ndeke yaakaaroon naa ne nit la kii kat puuf la parce que kalaamu kullu afkaar tafsiq takfir tamsiq taayir hada laysa bi mumin waxam kii kéeféer la waay kii du dara waay kii xamul dara فقط هذا هو كلامه هذه هي السنة وماذا حفظ حفظ السنة أو حفظ الطامة confirm kita bisa dulu ilmu sama lama sunna la wala nam kon julli nekkut loo xam ne lu muy caaxaanee la beneen bi ci tegu mooy hifzul awqaat fi ma yanfa مثل تلاوة القرآن وقراءة الكتب النافعة وزيارة الأحباب بالله وفي الله وصونها عما يضر في الملائب والملاهي ثم مراقبة الله تبارك وتعالى في المتجر والمصنع والمزرع والوظيفة وما سوى ذلك kon beneen bi ci tegu mooy moom ndaw boobu nga xam ne moo bugg sàmm sunna jëriñ xeet wi dina sàmm ay waxtoom du ko foye du ko caaxaanee ci luy jëriñ dong la koy def yonent bi sallallahu alayhi wa daal dina joxoñ anam ku mel noonu boole ko ci yu baree bari ci sàmm waxtu boobu mu ne nit ki na ko dal sàmm mu boole ci buntu bii ndaw شبابك قبل هرمك حياتك قبل موتك فراغك قبl suxuli yépp nekk loo xam ne day jëm ci waxtu boo xam ne dañ ciy bàyyi xel sa dund kon loolu yaatu lay doon sa ndaw ba nga amee waxtu mu ne yépp dañ koy sàmm ci loo xam ne nag mooy jëriñ moo xam jàng Qur'an la moo xam ay téere la moo xam ziyaara ay mbokk la moo xam moo xam moo xam waaye ngellawaay bul jëfandikoo waxtu woowu ci lu amul njëriñ ci caaxaan ci foontu te nga yëg ne borom bi subhanahu wa taala mu ngi lay moo xam yaa ngi ca bitig ba moo xam yaa ngi ba yaa ngi ca tool ya ca bureau ba yaa ca école ba yaa ngi ca toogukaay ba foo mun a ne borom bi subhanahu wa taala yuraqibuka fi jamii l mazalat wal azmina wal amkina borom bi moom ku la sëpp la di xool anam yu kon loolu ndaw bi bu ci bàyyee xel ah dina jëriñ te na nga yëg ne wal awqaatu mahduda wal anfaasu mahduda faxtanim xayaataka nafisa waxfaz bi awqaatika al aziza falaa tudayiha kon na nga gëm yow mii say waxtu dañ ko limité daa am fu mu yem sa dund kazaali daa am fu mu kon na occasion dund bu cher bii fexeel sàmm sa waxtu yii waay waay waay bu ko jeexal ci qiil wa qaal ndaxte mooy aktaru ma ahlaka al umam al qiil wal qaal wa kasratu lmasail wa ixtilaafu bi anbiyaai wax rek boo xam ne teguwul fenn kooku doomu aadama da koy war a moytu bi ko juróom-benneel mooy ixtiyaaru asxaab alsaalihin wal julasa annaasihin boo buggee sàmm sunna jëriñ xeet bi fokk rek nga tànn nga tànn ay àndandoo yu baax ngay toogandoo ak ñoom ndaxte ñoo lay laayee biir ndaxte ñoom ñii ñooy ñi nga xam ne araful xaq wal baatila wajtanabu wal mar'u ma aqarini fokk rek ñooñu ñoo xam dëgg topp ko xam caaxaan moytu ko boo ànd ak ñoom ñu topp loola dëgg moytu loola caaxaan ndaxte doomu aadama ak àndandoom moo tax olof yi dal dinañ ko misaal wax ma sa àndandoo ma wax la sa sa jikko moo tax ñu ne waxtar min al asxaabi kulla murshidi inna al qarina bil muqaarani yaqtadi tànnal tànnal ay àndandoo yu baax ñoo xam ne dangay jëriñu ci ñoom dangay sawaree ci ñoom dangay taxawee ci ñoom mu ne ndaxte ah ku nekk rek ak àndandoom nag am na lam cay lu mu cay tibb wal yanzur ahdukum mimman yuxaalidu ku nekk ci yéen na tànn nag kan mooy àndandoo bi ndaxte almarbu ala diini xalili ni mu mel lañ lay jàppee ba ko juróom-ñaareel nag ñu ne nag waxtu wi jeex na te man jàppoon naa ne moo ci ëpp solo xanaa ñu dëxañ tuuti rek mooy al amalu bi sharai al al zahira wal batina al qawliya wal i'tiqadiya fi muqaddimati zalika al imaanu bil qadar xayrihi wa sharrihi jëfandikoo sharia jëfandikoo sharia bu leer jëfandikoo jëf yu leer yi ñépp xam ko jëfandikoo jëf yu nëbbu yi nga xam ne kenn xamu ko moo xam wax la wala pas-pas la wala jëf la la ca jiitu nag ñu ne mooy gëm ndogal kon fii jafe-jafe yu bari fii la jafe yoo xam ne fii la am na na loo xam ne junj nañ ko ci ndaxte jaar nañ foofa yépp ñu ne léegi ndaw bi macha allah fa huwa muslim macha allah fa multazi macha allah fa huwa daaiya macha kii ndaw la boo xam ne ku gëm yàlla la ndaw la boo xam ne ku tënku la ndaw la boo xam ne day woote jëme ci borom bi subhanahu wa taala kon nag léegi lan moo des ah mooy jëfandikoo nag jëfandikoo atte yi idan atte yi mooy jëfandikoo kayfa yunziluha ala alwaaqi kon naka la koy wàccee nag léegi ci société bi pour wone wone lii nga xam ne mooy mooy atte yi kon loolu daa laaj anam yu bari lool ngëm ca la expérience ci la sellal ci la donte sellal baa ngi ci biir moom ci biir ngëm ndaxte daa am majaalaat yoo xam ne ci la koy ci la koy wàccee gannaaw ba mu xamee ne am na ko ba pare kon léegi lan mooy des mooy mu am xibra nag léegi ci jëfee ko ndaxte am na lu nekk ci kanamam am na majaal boo xam ne mooy al majaal al am na majaal boo xam ne mooy al am na majaal boo xam ne mooy ad daawi loolu yépp nag mu ngi ci sa kanam fas mu ngi mel ni fas nga ko mais noo ko fasee parce que atte booy wàccee rek li nga fas day dal di feeñ fas-fas yépp day dal di feeñ man lam yaxkum bima anzala allah fa ulaika humul kafirun anta taisu fi dawla alamaniya idhan kaifa takunu afkaruka kaifa takunu tatbiquka lil aya kaifa takunu da'watuka ilaiha kaifa takunu tafsiruka laha kondolu kaifa kaifa yakunu ta'thiruka bin nas lolu ñu bari ñu koy sàggale lu ama am solo këpp ku àttewoowul ci yoonu yàlla yéeféer la da ko borom bi subhanahu wa taala ko jeex anta ta is ci dawla almaani yow nag yaa ngi dund nekk ci dawla ku àttewoowul loolu kon yow aaya bi nga koy appliqué doomu aadama yi nga bëgg a jeexantal ci ñoom nooy jëfandikoo moom ci wax ji sa comportement ni muy mel hal kullu naasi kuffar isa kafartahu kafarta ndaxte bul jàpp bul jàpp ne lu tuut xam nga léeg-léeg dañuy jàpp ne rek lu tuuti rek nga jàpp ne noonu lay génnee atte bi jeex na kon njiit yi ku faar ndax loolu la jàkka ji ñu toog man alladi asdara al izna li binaahi alaysa dawla al almani alasna numinu ala sixati alwasiqa أن هذا المسجد ملك لفلان نعتقد أو لا نعتقد نصدق أو لا نصدق من أصدر حكومة علمانية kon jàkka ji ñu toog mais dafa am autorisation autorisation ban état moo ko joxe état islamique ah déedéet ndax gëm yaa moom jàkka ji ki ñu bindu ndax gëm na ndax valable na valable na nooy d'accord nag tasarrufu l-insaan yakunu sahih yakunu muwafiqan li shar huwa nafsuhu yakunu xaarija shar loolu problème la parce que li qillati xibra foog ñu daal di ci bàyyi xel ne sa daal di dégg mënul valable lu dul bi tawqii anta taqulu huwa kaafir sa jawaazu safar laa yumkin illaa bi tawqiihi تقول هو كافر جنسيتك حتى تقول هذا السنغالي بتوقيته هو تقول هو كافر ما لكم كيف تحكمون aya hii aya la yoo xam ne nattul ko halil ulama dañ koy bàyyee borom xam-xam yi di ñuy dund ci étape bi nga xam ne moom la ñu war a dund ñu woote ci bi nga xam ne foofu lañu tollu pour woote ci waaye nekkul ku jóg rek ne nangam nangam alhamdulilah sa hakaza de ba ngay wax ne yéeféer la yow sa bopp yéeféer la de gëmuloo ko ko rek mais ba nga ko yéeféerloo nga yéeféer ndax yow sa jumtuwaay yépp bi tawsiqihi huwa doo tukki lu dul moom doo moom lu dul moom doo am sañ-sañ lu dul moom ah yaa axi système boobu balaa ngay wax ne kulluhu kaafir war ngaa def de kon majaal boobu ndaw yi war na ci bàyyi xel tanzil hazil afkaar wàccee xelaat yooyu loolu loolu loolu du caaxaan de lan lay jur alxuruj xale xuruj sunna li jur koy alxuruj xalil xuruj alal xukkaami sunna la muy judd mooy génn toog féttil di yàq di wax lu bon di def lu bon ndax loolu sunna la ah uusikum bi taqwallahi wa sami wa taa wa in taamara alaykum abd la budda min asami wa taa fi yurdi llahi tabaraka wa taala kon loolu xëy lu yomb la kon anam yu mel noonu ndaw bi bugg sunna jëriñ xeet wi ah, day am toog ak génneeku ci anam yu nii gis ne loolu jëmul kër de te lay sa daawa sunna te borom bi subhanahu wa taala koy tere wa atiu llaha wa atiu rasula wa ulil amri minkum kooku bàyyi ko borom xam-xam yi sa nopp dégg ko yàlla ak yonentam ak ki méngoo say mbir ki méngoo say mbir la قد يكون صالحا وقد يكون mun na nekk mun na nekk ku baax mun na nekk safaan ba waaye méngoo na sa mbir seetal yow yi yéwénal sa mbir dëppoog charia si loolu leneen di téye sa la mbéy sànq ko sutura neex ay musi benn yaa bëgg a indi problème mais problème amul de maa fi ay musi amul lenn lu am mais application bi ci ba nga waxee ne man damaa taxaw ci taxawaay boobu foofu la mbir mi dal di kon côté boobu waxtu bi daf ñuy dab kon ñu gàttañ rek donte lu lu yaatu la solo la parce que man damaa jàppoon ne muy lubbul mawdu xëy na nag damaa a guddal ci yi jàppoon ne yooyu itam yu am solo am na beneen majaal boo xam ne mooy almajaalu ijtimaay mais yow da nga dund ak doomu adama te waxu yonent bi sallallahu alayhi ngir mu dëppoog sunna dañ ciy war a bàyyi xel wa man lam yaman jaaruhu bawaa'iqu ci lan la taxoon wax ko koo xam ne ki mu dëkkal rek xelam rek dalul ci moom faqat ñu génnee ko ci iman mais baadu tasarrufaat nooy def ba xelu nit ñi dal ci yow kayf kalaamuka muxaalif wa zayyuka muxaalif wa afkaaruka muxaalifa wa daawatuka muxarriba kon loolu lu muy nekk bu fekkee yow sa sa sa yi sa xelaat yi dafa jaar boor sa comportement dafa jaar boor sa waxin dafa jaar boor sa daawa day yàq xayf kon kooku naka naka naka la nit di méngoo ak loolu kon majaal bii nga xam ne mooy majaalul ijtimaa yi dañ ciy bàyyi xel bu baax a baax ñaata yoon la yonent bi sallallahu alayhi wasallam jëriñ yéeféer dëkk moom jàppale ko mu feebar mu seeti ko kàmbar na ko lekk ko tayle ko jëflante moom asi mara ah kon ana mu mel noonu ki nga xam ne itam moom mooy woote bu nga nekk ndaw woo xam ne day sàmm sunna jikko yooyu pourquoi doo ko sàmm sàmm mabaadif yooyu pourquoi doo ko yitte moom kon nit ki warul nekk masdar fitna li waru nekk moom ci moom la waxam la fitna sosoo wala ci ay jëfam la fitna sosoo parce que du yem ci moom bu génnee dootul yem ci moom de ñaari loru na ña ca ay dee ña ay yàqule ña ay am coono bés pénc noo koy layee ak darar yuzaadu naam walakin laa yuzaadu bi darari misli yàqute naam dañ koy faj mais duñ ko faj beneen yàqute dañ koy faj ci maa min kon loolu beneen expérience boo xam ne nit ki da ciy war a bàyyi xel bu baax beneen bi mooy almajaalu daawi yow ci daawa nga ne laa budda an yulimma almaduwin laa budda an yaarifa azruf almuxiita laa budda an yaarifa almasalih walmafasid kon mbir yooyu da ciy war a bàyyi xel te loolu expérience maanaam yow da ngay woote mais ci sa biir woote bi da ngay wax ñi ñii maay woo ñan lañu yan idée la ñu yore ah lan mooy seeni xelaat lan mooy seeni taxawaay lan mooy seeni tolluwaay lan moo baax ci ñoom léegi li baax ci ñoom léegi aman na suba du loolu mais léegi fi ñu toll lan la ñu yittewoo ah lii la ma jaaraat ñu ci jàngale ma jaaraat ñu ci jàngale aqida la ñuy jiital nga jaaral ñëw ci aqida parce que actuellement loolu fa la ñu toll nga jaaral ñëw ci loolu kon loolu am expérience nga xam lan mooy maslaha ak mafsada lan moo xam ne tey boo ko jëfee boo ko waxee day jëriñ lan moo xam ne boo ko jëfee boo ko waxee day yàq donte nag dëgg nga wax waaye xaaliyan lay sa maslaha fii ñu toll nga dund ak am expérience limaza sakat mais kooku équation la ala alamat bi sifa ndax dañ koo raw wallahi la wala da nga yaakaar ne dañ ko ëpp ngëm waaye huwa yaarifu almaslaha walmafsada li ajli almaslaha saqata xawfan min almafsada saqata nga wallahi jëfandikoo na ko de waaye daa séen loolu gis daa xam foo yegg siwul anam boobu nag loolu nekk nag sababan li xatli loolu nekk sabab boo xam ne nag kon kii du dara kii dafa ragal kii dañ koy nger kii nangam ak nangam ak nangam te xaqaqal asiya qabla an tuulaat kii jëf na mbir yu bare yu bare yoo xam ne juddoo ko waa axta naam istagfir lahu ah loolu waaye yaa axi ñaanal yàlla mu ko ah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba borom bi leeralee la mu leeral fa bima rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta faddan xalida alqalbi lan faddu min hawlika lu mu ci teg waafu anhum wastaghfir lahum wasaawiru fil amr ah dangaa nooy ngir yërmande borom bi subhanahu wa taala boo ñagasoon boo ñàngoon boo soxoroon danañ la fi bàyyi kon nag jéggal leen wastaghfir lahu ah balu leen yàlla wa shawirhum fi la waxtaanal ak ñoom kii mu ngi ci daaw bi jàng na wax na lu waxul naam axtaa faqat mais di fa juum rek kama tuftiku anta alladi tusawibu ni ngay juumee yow moom moom itam noonu nga juumee yaa axi bul asamaan bi dafa juum rek jéggal jullit guddi ñaanal ko naan allahumma arihil haqa haqqan wa arzuqu husna ittibaai waru la ko jaral mais war na la ko jaral yaa axi ah wéetal yow nga wéet ñaanal ko naan cay yàlla jàmbaar la waaye juum na yàlla jéggal ko yàlla won ko dëgg yàlla baaxee ko mu dellu si ci dëgg nga dem ziyaara ko seet ko munuloo loolu bind ko message bi kalimatin waadihatin tusiru ila al xubb nga bind ko ci kaddu yoo xam ne kaddu yu leer la kaddu yu ñagasul kaddu yu leer i mbokk mi xam naa keroog ba ngay wax seen woon nangam yaa ngi xaalafa kaza wa kaza lan laay bind bindal la jazakallahu xayran gafarani llahu wa iyyaak lu muy indi bëggante soppante sësoo def nangam ak nangam waaye dem di publier ci internet ak dem di wax ay musiba dem di sànni ay message yoo xam ne subhanallah hadihi laysat sunna bal muxaalifa laha kon mbokk yi ñuy ñaan ci borom bi subhanahu wa taala ndaxte ñun ñuy saara ñu waxtu yi ñëw na kon ñu ngi ñaan ci borom bi subhanahu wa li ñu wax yàlla dëppoo ak sawaab waaye yàlla nañ ko déggee it li taxoon jubluwaay bi mooy laante biir yàlla nañu yàlla defal jàmm dëppale ñu ak jàmm wa ma zalika bi aziz wa salaamu aleykum wa rahmatullah barakallahu fikum ya cheikh eh, kon li ci topp mooy bi idnillahi tabaraka wa taala danañu ñi nga xam ne dañu bëgg def dañu am ay laaj dañuy joxe seen tur ñu bind ko su ko defee ñi nga xam ne itam dañu bëgg a taaliq ñoom itam danañu bind seen tur waaye ñu jëkk a woo ñu bëgg a laaj su ko defee suñu paree su suñu waxtu desee insha allahu taala ñu jëm ci ñi nga xam ne dañu am ay taaliqaat ñu ngi sant euh, cheikh bi bu baax a baax di ko ñaanal suñu borom tabaraka wa taala ñu bàyyi xel bala ñuy jox ñiy laaj tënk bi nga xam ne moom la cheikh bi jëkk a def ci ñetti ndaw ñooñu tënk bu am solo la mooy nit ki su jàngul benn ci ñaari ñetti kàmb yooyu fokk mu dugg ci benn fekk mu fokk mu nekk benn altoppe boo xam ne bii daanaka kenn rek la amal affaire mooy kii mu teg bët loolu baaxul wala mu nekk koo xam ne gaynde lay doon koo xam ne gi dafay fàddaate gaynde googu nag léeg-léeg mu am ku góorgóorlu sax ba doon yër waaye bi cheikh bi mujjee si boo sàgganee mu mujj fa moom ci boppam bu jëlul ngànnaay di dal ci kaw nit ñi di leen fàdde maanaam mu jël am xelam comme ni mu koy waxee di dugal di génnee mel ni moom ci boppam moo yor mën a pës mën a për gi sunna nga xam ne ku mu neex ci ay xalaatam mu dugal la ci sunna ku ko neexul nga juyoo moom ci sunna mu génnee la ci te yooyu dem bu baax su boobaa it moom xel mi ci boppam na def mu nekk gaynde xel moom mooy fàddaate di dugalaate di génnewaat loolu nag li la ci mën a génnee mooy gannaaw boo jàngee ba pare ngay jaxasoo ak mag ñi nga xam ne ñoo la ëpp xibraat ñoo la jiit ci liggéey bi loolu fokk mu am mbir mi lépp ni dañoo tekkeeku dañu tekki nit ñi ñëpp rek ñu daal di tasaaroo loolu mosul am même ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da ngay gis ne ndaw mag ñi nga xam ne ñoo leen ci jiitu parce que fokk mu xam loo xam ne dund loo xam ne gis loo xam ne yow xamuloo ko kon loolu fokk ñu bàyyi ci xel bu baax a baax incha allah tayib léegi ñu jekkee ci ñi nga xam ne dañu am ay laaj dañuy jëkkee jëm ci Muhammad Taago bu fekkee tur noonu la mu laaj ab laajam ñu jàll ci keneen ku ci nekk rek fa nga nekk mën nga faa joxe sa laaj ci ak

ci nekk bu fekkee bu ma nga laaj bu njëkk bi naam mbooloo moom nit dina ko amee fekk imaam sëlmalagul mun naa bañ a bokk ci julli bi dara mais fekk imaam sëlmalagul rek bu dabee rek dina am yoonu mbooloo bépp rakk nag bu mu teeweewul ruku ba du du bokk ci rakk boobu mais du ko xañ nag mu amuk mbooloo jàng quranu karim ci boo xam ne néegam ak ba mu toog ca jàkka ja lan moo ci ëpp yool jàpp nañu ne ba mu def ca jàkka ja la su fekkee da koy saytu ñeneen ndaxte loolu moom am na tegtal amul benn mbooloo boo xam ne toog na ci néegu ji yàlla ñuy nafar alquran di ko nafarante ci seen diggante lu dul borom bi subhanahu wa taala na ci ñoom dal lu dul wàccee na ci ñoom ay malaaka lu dul tudd na leen ca moom kon loolu ngëneel yooyu saytu alquran ci biir jàkka la am maanaam def ko feneen fu dul biir jàkka sàmmuma ci tegtal bu mel noonu dina am tiyaabo nag bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam junju xarab boo jàng ci quran rek am nga ci fukki yoon loolu moo xam ca jàkka ja la moo xam ca biti kër ga la waaye biñ koy saytoo ci biir jàkka ji nag ah boobu la ñu gis tegtal yooyu du tee am na ñu nekk fii buñ ci amee yeneen settantal yu gën a leer ñu baaxee ñu ko jazakumullahu xeyr ki ci topp mooy Ibrahim Diallo Ibrahim Diallo aleykum salaam moom amul benn borom xam-xam fii suñu borom xam-xam ñun ku ko ëpp xam-xam kenn ku mu neex naa ko invité ñoom ñaar ñu débat tey nag man dama doon laaj mbaa ñu yëg ngeen loolu fekkee ne yëg ngeen ko mbaa yëg nañu wax bi mu wax ne déedéet ñu ko soog a yëg yëg nañu nag siit yaa ngi dugg mu nekk fitna loolu moom yëg nañ ko ndax waaj nañ ci dara yi naan ndaxte jetaay bi benn la ci waajtaay bi mooy fexe xippi euh, botu jullit rawatina ndaw yi ci yeneen xelaat yoo xam ne bokk ak ya ñu ràññee woon bokkul ak ya ñu xamoon loolu moom ñu ci taxaw bu baax di ci ñaan yi borom bi subhanahu wa taala defal ñu ci ak ndam waaye ñu ngi ñaan ku nekk itam nag moom na ci def ab man-manam waaw jazakumullah xeyran xam naa ne question boobu sax dañ ci profité waxaale benn conférence bu war a am mu jàmma Ablaye Baba Dieng moo ko war def ci wàllu boobu ci boppam xam naa ne ku ci dem di nga am eh, wala doy bi indi laay tabaraka wa taala le vingt huit naa mooy dimanche bi di ñëw wala naaw barakallahu fiikum ban seize heures lañ def naa seize heures waaw waaw incha allah tayib euh, docteur Abdoul Abdourahim Diallo in kaana ah taalib naam Souleymane Diallo naam bismillah waaleykum salaam loolu bu la def ba nga xamante ne yenn borom xam-xam yi nga xam ne xam na ci ñoom xam loolu man boobu seen jàkk avant ba léegi waajal seen la ñoom ñoom rek fil maaruf parce que wuute ci gisin la te li indi wuute gisin boobu mooy li ñu waxoon léegi bañ a waxtaan rek doyloo say xelaat rek wala doyloo yeneen yi kuréel wala nekk ndaw. loolu dong mooy indi anam yu mel noonu mais jëflante bil maaruf ci lépp loo xam ne jàpp nañ ne lii moom yiw la lii du génn topp loolu moom ñu jëflante ci loolu ndaxte yéefee sax suñu diine bi saxal na ñuy jëflante ak moom bil maaruf naam barakallahu fikum côté boobu boo xoolee ñoom ni lay wënn seen xel rek lañuy ñuy demee bokk na ci mooy xoolal bu maanaam ci at yi ci gannaaw rek da gis ne benn kuréelu ndaw moo sosu woon boo xam ne dañu wan ne dañu wane ne ñi fi nekk dañuy ànd ak ñoom ci lépp du ñu wax ci ñoom dara du ñu leen amul lenn lu ñuy wax ci ñoom jaayante moom ci gépp anam waaye bi ñu demee ba mu yàgg comme ci seen xel la ñuy topp mu am beneen kuréel bu sosuwaat encore léegi kon kuréel boobu bi ñëwee dañu wanante gannaaw moom bi fi bi fi nekkoon nga xam ne dañ naan ñii moom ay yéefar lañ ñu jëflanteeg moom ci lenn loolu xel moo koy def waaye nusuus yi ñu doon topp waroon ciy jaamu yooyu mi ngi fi ba tey te mag ñi leen fi jiitoon ñu ngi ciy def te teqale googu mosuñu koo naan kon da gis ne kon mbir mi fokk dañuy jàng waaye dañuy dellu ci nga xam ne ñooñu fi jiitoon loolu moom mooy waral euh, yi demee noonu euh, kon defe naa ñi bind woon pour laaj jeex na ñaar moo fi am ñu war a def contribution muy Abo Ibrahim Maam Ngoor Njaay ak docteur Abdourahim Diallo incha allah cheikh euh, أبو إبراهيم كان نعم تفضل صاحب المكان وعليكم السلام ورحمة الله الحمد لله وآله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام jazakallahu xeyran yaa xam ne ñoo taxawoon liggéey defe naa ne lépp wax ñun ñëpp dégg nañ ko xëy na kàddu yi ci arab dañ koy waxee taaleet waaye du taaleet damay dénkaale rek ndaw ñi la doon waxal waaye mag ñi jëlaale nañ ci seen wàll li mu wax lépp mi ngi tënk ci ndaw li nangoo dégg te nangoo muñ tey jëfe ndigal kooku lañ soxla ndax kooku mooy am mustaqbal mooy am avenir mooy am ëllëg fokk mboole ñett dangoo dégg dangoo topp dangoo muñ dégg topp muñ fu sori lay tàmbale noox alayhi salaam ba ko yàlla borom bi subhanahu bee njariñal xeet wa te doom ji déggul déy ba mu ko nee kaay fi nga war man a jariñoo mu lànk lu ko ci lu mu ci jële dafa àll ndax kenn ci yéen mbooloo mii ci talabatal ilmi xam ngeen doomi noox ñu mu tudd jàpp naa ne ñu bari mën nañu wax laa yitteelul ndax ñàkk gum ñàkk njariñ moo tax lislaam yitteelu yittewoowu ko jëf jële yittewoo pour di la ko wan ngir nga bañ caa sërxalu Ibla Ibrahima Xalilu ba mu amee doom ju baax yeex koo am doom ji dem ba doon yaakaar borom bi déy ko lu mu déyul doom ji ba mu ne doom ji damaa gis ñu war laa rendi lu mu ko wax yaa bati xal maa tukmar lu ci toog xool leen ñaar ñooñu kële def ko ne sa awi ilal jabal yaqsimuni kii ne ko yaa abati faal maa tu'mar sa tajiduni insha allahu min as-sabirin defal liñ la digal loolu mooy li seex bi doon wax mag mi dafa gis loo gisul xam loo gisul ex euh, loo xamul expérience yow àgg ko foofu bu la mag mi digalee nga ne déedéet nga fab say afkaar jiital takk fii ko ci def ko passé def ko kasuul def ko daay waaye xoolal Ismaïl ifaal ma tu'mar defal lañ la sant sa tajidunu insha allah min as-saalihiin ba nag ni jàng ismaahil ci alquran su ngeen di jàng siiratu nabi sallallahu alayhi wa sallam siiratu nabi sallallahu alayhi wa sallam jàng min zuriyati ismaahil alayhi salaam xool leen ñaar yooyu mu mu xaaral leen ñaar yooyu comparé leen ñaar yooyu ngeen ñëw ci lislaam bi muy wàcc wahyu bi juróomi ay yi jëkk a wàcc mi ngi fekk ñaari ndaw ci néeg bi Zayd ibn waali li nga fi tax ku ci ne foofu rombul fukki at ak benn du guddal kan moo jëkk a doon safir ci lislaam ah Moussa ah Moussa bi nu may ndax mag la gone fu ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam yónni fi am mustaqbal ndeke mu ngi Makka waaye ndeke wax yu gi Madina lay mate ji mu yebal ko fa mu di fa jàngale awlu safir ci ndaw xaybar biñ ko ubbi ku ñu doxal drapeau bi Ali ibn Abi Talib ca la Omar doon wax ne keroog rek laa fanaanoo bëgg a doon giib ci dara ngir mbir mu rëy moo xam ne dañ koo teg ci loxol gone dañ koo nar a teg ci loxol gone ndeke gone koy ci in gone day amee injaas mbokk yi gone fokk mu dégg fokk mu topp fokk mu muñ ndax résultat fekk ko fa boo àndeeg sa baay muñal soo àndeeg sa mag muñal soo àndeeg sa sëriñ muñal soo àndeeg ku la mag ci yëf muñal waaye mag ñam nañ ci wàll mag ñi dañoo war di nemmeeku gone yi dañu war di xool gone yi dañu war di jubbanti gone yi dañu war di muñal wax na ko ne bu fekkee fu ku juum nga jul génnee doo doo bari ndaw yonent bi alayhi salaatu salaam da leen doon xëcc ci seen wet ci wetam di leen jubbanti di leen muñal ku def lu dul noonu mu ne du noonu waaye bu ñu nekkee ci ay jafe-jafe mu am ca inaaya mu yëg ko bàyyi ko xel ba mu jaar ko déplacé sabro alias du ko tax a mooy yëg la ñu nekk ci mënu ci dara waaye doom ci sot la mu ñëw fekk si leen xamal ne leen li ngeen nekkee métti na mënuma ci dara waaye nag dinaa defal seen xol fa inna mawidukumul janna loolu dalal seen loolu yóbbu leen commencé comme ni nga ko kon man ñi ak gone ñoo bokk liggéey bi na man ñi bàyyi xel gone yi di leen jubbanti bañ a gaaw ku yàq ku juum ñu sànni waaye bañ leen a bàyyi fañ nekk rek ñuy seet ñu doon ndawi gone ndawi kese ndax ndawi kese bu ñu ku leen magal bu ñu mën a def lu dul xelum ndaw wala déggu ma wax ndawi kese bu ñu beroo amuñu ku leen magal bu ñu mën a def lu dul la tolloog seen xel kon fokk man ñi di leen baxel waaye ndaw ñi nañu topp mag ñi fi may jeexale mooy ndaw dafa yàgg liggéeyal islam ndax daf ne wa xidmatil umma dawru sabaabil muslim fi xidmatil umma ban umma xayril umma anas ibni malik kañ la ko yaayam joxoon yonent bi alayhi salaatu salaam fukki ne ci sa jàkk ji gisuma bu ma ñu manqué fukki at bëri wut de ana kan moo ci àggagun ci liggéeyal xidma xidma bi lislaam boo xam toog toog nga ak boroom xam-xam lu mat ñaari weer rek te néewul la lu tax nga def lii wala lu tax defoo lii kee moom fukki at ak ñaar mu nekkoog yonent bi alayhi ko lu tax nga def nanga musta sàcc ne lu ko war ba yonent bi saa salaam ne ko lu tee def nanga ndaw ñi kon seen wàllu mag ñi bari leen yërmande fa bimaa rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta faddan galiza alqalbi lam faddu min hawlika na ndaw ñi góorgóorlu nangoo muñ nangoo dégg ndigal nangoo topp na mag ñi di nemmeeku gone yi tey juum te jéggale seen njuumte te di ko defar ci gënu gaarafe ci defar na wallahu ahlam du taaliq ak ndéggaani la wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam. walan ahmad rabbi wa salli samada ala rasulillahi misbaahil huda wa baad ñoo ngi sant yàlla di julli ci yonentam alayhi salaatu wa salaam di ñaanal Cheikh Galaay ak ñi taxawee jàkka ji ak ñu taxawee waxtaan wi yëpp daa mel ni la ñuy wax tamit ay dénkaane parce que cheikh bi li mu wax mot na sëkk waaye ay dénkaane la yoo xamante ni dañ koy dénkaan di ko jox ñi nga xamante ni ñoom ñooy shabaab yi tey boo déggee cheikh bi wax na lu bari ci xam-xam tey lan moo manqué shabaab yi xam-xam moo ñu manqué ak nan lañuy ñuy wutee xam-xam ak bu ñu amee xam-xam boobu nan lañ koy joxe loolu moo ñu manqué bu ñu demee bay wut xam-xam ñun ñooy wutal suñu bopp xam-xam ñu ñooy ubbi benn téere jàngal ko suñu bopp déggal ko tamit suñu dégginu bopp bu ñu demee tamit bay wut xam-xam boobu ba ba ba ñu jàng loolu buñ koy joxe duñ ko joxe ngir bëgg dëgg feeñ ngir bëgg jullit ñi njëriñoo mais ngir bëgg ñun ñu feeñ fàtte nañ qul hadihi sabili adu ila allah léegi ñu bëri suñu la lañ def adu ila nafsi wane may kan te wane may kan fu mu duggee rek xam-xam réer na ndax saay dañoo nekk ci benn baal yi Mauritanie di jàng cheikh bi moo ngi fees dal xam-xam walilahi alhamdu mais mu nekk tey masaaj bu xóot aw benn taalibe algérien mu dugal ci kàddu cheikh bi di wax ay masaaj bu rëy comme masaaj bu takfir mais mu dugal ci laaj wax ci lu te wax cheikh da ko gëstu na ko xubbu zuhur yaqsimu zuhur ñaari zuhur yi di benn mu ne ko bëgg feeñ day rëq dikk xubbu zuhur yaqsimu zuhur nit wutal xam-xam ba noppi nga xam tamit nan nga koy wuti nañu bàyyi suñuy mafhum ñun rek di demee suñuy mafhum bu ñu demee suñuy mafhum rek coow la indi moom moo tax boo delloo ci téere Bakr Abu Zayd bu mu tuddee ak taalum danaan la al-ilmu thalaathu ashbaar nan la xam-xam ñetti pàcc la man daxala shibrahul awwal boo duggee pàcc bu njëkk bi takabbara da ngay rëy loo dégg loo xamante ni mosoo ko jàng ci téere bi nga jàng benn téere bi nga jàng wala loo déggul ci sa cheikh rek boo ko déggee feneen rek lan ngay njëkk def da ngay rëy takabbara parce que masala bi benn wax rek lañu ci xam day rëy day metti mu ne nag waaye muñal rek wa man daxala shibrahu thani boo duggee nag ñaareelu pàcc bi nan ngay def tawaaba da ngay woyof parce que boobaa ngay xam ni ah masala bi day am na ñaari wax te ñaari wax yi day dem du ma wax say ulama al mutaqaddimun dama naan muasiruna yo ban base day dem ba fenn taxaw ne ah fii day fii laa taxaw wala ibnu saymin taxaw ne ah fii laa taxaw lam yattadex li shay wala albani taxaw ne ah lii de fii laa taxaw parce que xam nañ ni masala bi am na ñaari wax te ñaari wax yu dëgër te ñu leen jiitu woon tamit ñu leen ëppoon xam-xam dañoo taxawoon ci ñaari masala yi tawaqafu fi masala ñoom dañuy yegg ba ci niveau boobu mu ne waaye wéyal tuut xam-xam mu ne wa man daxale chiprobu salis boo demee ba dugg troisième pàcc foofu xama na ngay def alima foofu ngay xam ne xamagoo bu ñuy wax ci masaay bi sax da ngay comme tey ñu dellu rek ci benn xadis bu ndaw wala benn xadis tuutiwul mais yonente bi alayhi salatu wasalaam danaan unzila alquranu ala sabati ahruf fa ayuma qara'tum asabtum wàcce nañ alquran ci juróom-ñaari xaraf boo leen ci jàng mu dëppoog ay mawasinam wër mais juróom-ñaari xaraf yooyu ñaata wax a jar ñeent fukki wax bi ci arbaina qawla est-ce que ñeent fukki wax yooyu yëpp dëgg la déedéet waaye nan xamee ban moo gën a jege dëgg nan ngay tànnee fanweer bàyyi fukk tànn ñaar fukk bàyyi ñaar fukk tànn bàyyi fanweer dem ba tànn juróom bàyyi fanweer juróom juróom yooyu nan ngay tànnee tam ban moo ciy wax loolu il nga ci man il ci ñi nga xamante ne ñoom jiitu ci xam-xam parce que du lépp lañ bind ci téere loolu na ko xam bu baax am na loo xamante ne expérience la expérience kenn bindu ko ci téere kooku mag ñi nga xamante ne ñoom ñoo la jiitu ci daaw ñooñu ngay dellu mun a xam loolu ci ñoom waaye bu nekkee yow yaay sa cheikh bopp yow sa déggin doy na jàng benn ñaari téere bëgg yegg fi nga xamante ni ñi nga xamante ni buñ juddoo ba léegi ci njàng nekk ak jàngale yegg buñ fa yow nga bëgg fa yegg xam nga yaa ngi nax sa bopp kon man li may dégg mbooloo mi moom mooy delluwaat toujours ci njàng wax na nag ci njàng li ci gën a am solo moom mooy nañ jiital alquran ñu bari ci ñun tey wala ñuy wax ci masail ñu bari duñ leen a qaala allah dañ naan la qaala cheikh fulaan qaala cheikh fulaan qaala cheikh fulaan qaala cheikh fulaan déedéet awalan qaala allah lan la yàlla wax yow bu nekkee yow yaa ngi jàng alquran te benn kalima bi sax ci biir alquran xamoo li muy ñëw ci alquran ñaata yoon ak lépp ak ay maanaam parce que da ngay gis benn kalima ci biir alquran sax ñëw mu ñëwaat ci beneen bërëb te du fekk li muy firi fii moom lay firi fii te benn kalima comme ñu joxe euh, exemple lafzu umma umma wa in min ummatin illa xala fiha nadir foofu maanaa la wa dakara baada umma maanaa la kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas maanaa la mais est-ce que maanaa yooyu yëpp benn la boo delluwul ci ñii doo xam wa lafzu ummatin lahu maani majmuatun tablugu thamaani jamaatun aw jaamiun lil fadli aw millatun aw tabaun lil rusli aw nasikun munfaridun bi diini aw muddatun hiya bi maana alxiini yooyu yëpp koo dul dellu si ñii xam man li ma bëgg rek moom mooy ñaar jàng dellu ci borom xam-xam am ay masaay yoo xamante ni yegg koo fa ko jéem a sax même boo fa yeggee na nga muccal sa bopp ci wax yow fexe yow la ngay yore umma bi wa sallallahu wa sallam ala al-mabuusi rahmatullahi jazakumullahu xeyran kon xam naa dañuy bàyyi ci dal gan yi ci barab bi incha mu tëj ñu daal di nodd julli bi inillahi tabaraka wa taala ma cheikh fadal bismillahi rahim euh, mbokki jullit yi ñu ngi sant bu baax a baax ci wuy si gi ngeen euh, sant gi cheikhna eh, cheikh Ousmane Gilaajo Ka di amiru xarakatu falaax ci yaatu gi yaatu ak woyof gim woyof saa yoo ko woowee lu aju ci xam-xam mu ñëw fekk li fekk si la ci ñu ngi koy sant bu baax a baax ci wax ji ni mu leere ak xam-xam bi nga xamante ne moom la sotti fii yal na ko yàlla may xéewal bu bare bare guddal aw fanam may ko wér ak kàttan eh, conférence yi dañ koy organiser ci jàkka ji weer wu jot bi mooy ñeenteelu conférence bi ginnaaw bi nga xamante ne oustaz Mor Kébé jaar na fi ak oustaz Ibrahima Khalil Lo ak docteur Mouhamed Ahmed Lo ak Cheikh Ousmane Gillaajo ko kon bi mooy ñeenteelu conférence bu nga xamante ne eh, organisé nañ ko ci jàkka ji incha allah noonu lañ bëgg a wéy itam weer wu jot dina am conférence publique bu nga xamante ne dinañ ko fi eh, organiser Euh, kon cheikh bi thème bi nga xamante ne tey jëloon na ko ak ni mu ko traité am na solo lool ndax euh, xale yi ñoom ñooy yaakaaru xeet yi ginnaaw borom bi subhanahu wa ndax mooy waxtu wi nga xamante ne ci li nit ki di tollee ci digg kàttanam parce que nit ki alxuraan na mu ko séddalee moom ñetti waxtu rek lay romb ci dundam allahu alladi xalaqakum min daafin summa jaala min baadi summa jaala min baadi daafin quwa summa jaala min baadi quwatin daafan wa shayba néew doole am doole néewaat doole waaw nit ki nag léegi jamono bi mu néewee doole néew doole bu njëkk ji nit ñi ñoo koy taxaw di ko jàppale di ko formé bu demee ba am doole nag foofu la war a jariñe xeetam bi nag foofu la amee mën a jariñe nit ñi waaye neen ñi ci xale yi dañu déggee ne jamono jooju nag ci nga war a sànke sa dund toog di foo ak caaxaan rek ba bu ma màggee nag doo commencé nag jëriñ xel mi bu boobaa doole ja amoon pour jëriñ xel mi doo ko mënati loolu moo tax ñi nga xamante ne ci salaf yi ñoom ñoo déggoon loolu xam importance bi nga xamante ne moom la jeunesse am boo ci gisee seen dund la ci liñ gën a jëriñ xel bi ña ngi ko jëriñee ci bi ñuy nekk xale ñaare am na ci ñoo xamante ne bu ñu la waxoon la ñu dund da nga koy weddi ne kii dund kii mu dund mënu fee def lii mu fi def lépp la mu taalif ci téere yow boo liir ko rek mënuloo ko ba boo jàngee ñu ne la trente cinq ans la dund quarante ans la am gën jaa mooy ne moom yëgul woon maanaam ba muy nekk xale yëg dooleem foofu la yëg ne fii la war a jariñ xeet bi mu profitoo jariñ ci xeet toogul woon ne day toog xaar ba ma màgg loolu boo koy def mënoo jariñ kenn moo tax kon ñun xale yi nañu gën a góorgóorluwaat bu baax a baax ci euh, jéem a jariñ xeet bi te diggante xale yeeg mag ñi yonent bi sallallahu alayhi wa euh, wax nañu relation bi nan la war a demee xale yi nañu war maal mag ñi mag ñi nañ yërëm xale noonu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan doxale oustaz Abu Ibrahim nee nañu euh, Anas ci lim ñu nett li liggéey la yonent bi sallallahu alayhi lu mat fukki at ak ñaar te mësu ko wax lii nga def lu tax nga def ko loolu du jàggee ne anas danaawut juum de daana juum waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo bari woon yërmaande ci xale ba boo juumee mu xam nan la lay corriger anas nee na benn bis daf ma yónni ma génn fekk xale yi di fo rek ma fàtte la ma yónni nekk ca di fo nee na aw ma ci lu dul dégg dégg dégg dégg kàddu bu sedd sama ginnaaw naan ma anas ndax doo dem ci la ma la yónni woon waaw nee na ma gestu fekk mu yonent bi bu du woon mag mu bariwul yërmaande da koy foofu rek jox ko talaata bu daanoo mu ne ko xanaa yónniwuma la woon waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñuy jàngal nan lañ war a am relation bi war a am diggante mag mi ak xale mag mi na am yërmande ci xale bi xam ne xale dafay juum xelam tam matawut na war a mate waaye xale bi itam nag na wormaal mag mi xam ne kii moo ko ëpp expérience moo ko ëpp xam-xam moo ko gën a xam dund bu ko defee mu mën jariñu ca expérience am boobu ak xam-xam boobu nga am bu fekkente ne doxale nañ loolu suñ diggante jàpp naa ne euh, njariñ lu bare bari dinañ ko mën liggéeyal xeet wi mag yi dinañ liggéeyal xeet wi ci seen xalaat xale yi liggéeyal xeet wi ci seen doole ak seen kattan kon mu ngi sant bu baax a baax fadil cheikh na cheikh Ousmane wa jazahullahu xayran di leen jox euh, dig daje incha allahu taala ba beneen euh, jataayu xam-xam kon bu fekkente ne euh, noppi nañ incha allah taala bu une heure demi jotee rek mën nañoo julli doog a tasaaroo wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin